moo tax nouvelle série kër gi cëy li gi dina neex dina yëngu accompagné par des jeunes talents ñu daal di si ràññee Ndiaye Lo Bourrois l'homme qui mérite son nom xale bi téré. réew ba say noonaam samay noona fa ne xam nga ne man ba kenn bëgguma ma jël la bëgg la yobu ci kër xam nga ne ñepp ko xam ci réew TikTok lay def di ko toj ba ci dem Pape ko invité may ko xaalis bu bari xam nga ni Pape Diouf ku koy Sénégal kooku doo ko ndaw. lañ dem ñëw tuul doo def. festé di nga lekk dëkk ba lekk dafa am ma jëlee leen dëkk ba yàgg say morom la ba ci kër Ndiaye loo di wër ci soo ma lekk ñuy wër mën maa xam ban kër la moo dal day mel ni contreplaqué nii góorlu nag da nga góorgóorlu man soo ba léegi maa ngi wër kii fële kii yàlla fa moo kër Ndiaye loo Ndiaye loo fa moo Ndiaye loo dem siiw rek walla defal nii taxawal nii par pare waaw ok jaajëf ngeen def yow góor góor waaw dara ku baax ku baax sëñ bi waaw ngir yàlla sëñ bi lu maa ngi lay woo boppale ah déggoo ma man maa ngi lay woo fële laa tombé sa waay sëñ bi sëñ bi nga war a taxaw ngir bu nekkee ci soo ba gi maa ngi wër xaw ma fu ma jëm bu ma waxaat lan fëkër fëkër jër naa jur naa toll yow loo ko wax tooñ ko maay bàyyam gis nga li ma takk ngir risque àdduna lépp risque la ma takkal ko casque àdduna lépp risque la ñi woote ngeen ay oto di leen fii ngeen di dee parce que amu leen problème nga problème bari nga wax kër Njaay loo laay laaj sëñ bi loolu gënul yow mais dama may jàmm ngir yàlla sëñ bi yow fës seet waaye waay njaay noo laa la wax tamit TikTok tamit seen challenge seen xaw ma challenge la xaw ma Pape Diouf. yow njaay noo ngay rajo wala rajo njaay. njaay noo waaw TikTokeur. seen kër mi ngi nii sonn naa ci wax ji wax trop waay. nañ dem nañ dem waaw jërëjëf waay wuy ma sëñ bi. rajo ma la njaay noo. loo siree ma jënd loo aan. kaay ñu dem kaay. rek nee nañ fii mooy këram. salaamaaleykum sëñ bi. ku baax. salaamaaleykum sëñ bi. kër lui! la lui! laaj lui! C'est lui! C'est la C'est di dem lui! c'est kër C'est yi C'est lui! bi lui! C'est bi C'est bi C'est bi C'est bi C'est bi C'est bi C'est lui! C

Modou Baye ba Modou yaa Modou yaa damay tàq sax Modou Baye ba. waa kii ma toj waay. lan la kay kay kay kii xanaa benn samba booy la ba. wuyu ma ba Modou Baye ba. Njaay xamee woo Njaay maanaam sa nijaay Njaay. nijaay. dëkk balaa jógee bu ma wër ci suba ba léegi fu nekk wër naa ko. ma fekk kii mu dóor ma dóor ba suba. kii mooy wàññaan muuma eh. waaw Njaay Njaay la. kii mooy wàññaan muuma. kii mooy wàññaan muuma Mor nañu Mor nañu saa xay daal Mor Mor. kii xaw ma nit ku ñu peese wala xaw ma nit ku ñu la baax nga xaw ma lu mu doon. am am ana Seydal. ah yaa koy jox li pour mu dóor la. yaa koy jox li layam yow yaa jaam xanaa du ma sa nijaay xool li koy jox. nijaay nga xoolal li violation de domicile la. déglu ma rek danga may déglu danga may déglu boo xamoon ni mu demee dangay déglu taxawal nii taxawal nii ana Seydal ana Seydal am am ana ay daal la ana ay daalam la am. Modou Modou dañ naa juutal lañ ma tourné Modou. ñëwal ñëwal ñëwal Modou dañ naa juutal. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal dañ naa juutal sama tànk yi fere kaw. dañ naa juutal ngir yàlla jaay jaay dañ naa juutal jaay baax baax dama dama dama dama ñibbi dama dama dama dama dama ku ma juutal ni ma dañ ma juutal sama tànk yi fara kaw Njaay ruux ma ma xool kii yàlla dalal ni jaay dalal dalal ni jaay dalal ni jaay dalal ni jaay yow yaay kan yow yaay Modou man maay Modou Modou mu ndaw yow man la la ilaha illallah ni jaay dalal kii nga fekkoon fii mooy wañaan mooma dafa naqari deret lool lool bàyyi fenn la foo nekkoon yow. yow sama nijaay ngi fi fekk fi wañaan mooma xaw ma lu mu jotee dóor na ko ba bëgg a dee. dóor waaw mi ngi nii. xam naa ne sama baay. wañaan xanaa dafa dof. jàll si leen ci biir jàll si leen ci biir. la ilaha illallah. Mour mu ndaw bàyyi si jàmm dama demal ma foral la sa daal di bàyyi demal. jàll si demal ci biir. dama ci biir dama ci biir dama ci biir. bëri ko noonu ñu tere asile yàlla nañu toog nii ak yàlla toogal toogal toogal toogal toogal toogal toogal toogal si kaw toogal si kaw toogal si kaw waaye toogal si kaw toogal si kaw toogal si kaw ay dafa gën naa bàyyi ak si jàmm rek kii de xaw na laa rey man nga nag man nga man nga baal yi baal yi baal yi nii abal jom Modou mu ndaw Modou mu ndaw moom de daa gaaw a màgg sax waaw baax na may leen ndox waaw la ilaha illallah ah nijaay sonn nga sonn nga sonn nañ. waaye damaa wër soobale Modou déglul. Ah. li yëpp yaa ma ko teg. lépp ngir nga réussite. Mm-hmm. Modou amal jom. dëgg la dëgg la dalal jàmm bu sa baay sonnee da ngay fas am jom. xool kee li ma woon nga taxaw ne yaa ci croiser les bras. pourquoi. dalal jàmm ak sa kër yaa damaa wër ci suba ba léegi maa ngi wër fu ma jaar kër Ndiaye loo muy tiktok ñu ànd ma nga ne la ñu nga a dëgg la dëgg la dëgg la donc fii sanc bu bees la moo tax ñi ko xam daal loolu la si la waaye si jàmm rek maa ci jàmm alhamdulilah waaye dëkk ba gëj nañ laa gis ah gis nga de man de ci télé rek leen lay gis maa ngi solo rek ndeysaan waaye yaa ngi góorgóorlu maa ngi te yaay liggéey sa kër bàyyi ko ma. dóor ma jàpp ko ma li may wax. waaye góorgóorlu. Njaay bii léegi da ngay am lu baax. Moodu mii nag dama ko fee indi na sa soxna ñëw sax ma àggale lépp mu indi ndox mi. baax na waaw dama ko fee indi. Mhm. ngir voilà jànku ndaw yegg si. kastoon mhm. bi yow amoo jom sax. Moodu li sa moom tàngu ta que doo. lu soyoon. lii man maa ko takkal àdduna lépp risque la. lii nii tey bu balcon bi wàccoon moom moo ko mën a sauver. kon faaw nga xam ne man may baax lu ma def rek am na lu tax ma def ko gis nga weer yi may takk bi ñuy ñëw oto bi saaraan moo gisoo saaraan la def na nii ma rik mu ñëw dal ci man bi ne ko sama ginnaaw maa ko may sens ci man la laa ko baal mi joxal la ko soxna Kumba kon dencal la ko ku denc tëjal yow bàyyi ma ki ñu doon duma. ñibbi na dem na ah, ah, da ngaa baax. ndeysaan nii nga mën a mel. waaye Ndiaye ma ngay gis ci tiktok bi. ngay kelaan ci lu rafet waaye Ndiaye. waaye na sa jàmm yàgg. waaye nit ku baax ndeysaan. waa kër gi nu te demee nag. teelu ci kër gi. waaye kër gi waaye. moo ko mos a fàtte rek. Modou Ndao. Modou Ndao. Modou Ndao daa gaaw a màgg sax. daa gaaw a màgg léegi lu war a damaa bëgg ngay dama ko fee indi parce que jële ko dëkk ba dafa nekk di xeex di xëccoo mbaami jàmbur yi di war mbaamum jàmbur keroog mbaamum bàyyiloo ma la war bàyyiloo jàppanteeg moom ba dóor ko dóor yu mit ma ne ko nag loolu tax ma jox ko gas bi parce que bàyyiloo da koo xaaj asafura da koo koŋ bi nga koŋee koŋ bi dugg na lu mat 5 kilomètres ci biir bopp bi ma ko ma soog ko gas bi ne ko moo du góorgóorlu instant yi moo tax muy góorgóorlu boo tiktokee mu tiktok boo liggéey mu liggéey boo xëyee xale yi bëgg nañ la ñëpp yow la ñuy waxtaanee. soxna Kumba. pourquoi ana néegu gan ñi maa defal ko ba pare. Ah, néegu gan. après xam naa dama lay defal ndox defaral ko néegu gan. ndeysaan incha allah sa soxna la. sama soxna la waaw. ndeysaan ay Kumba. Kumba indil guro ma may la Kumba mii de mayuma la ko moom. Ah, waroon ngaa wut Kumba mu wala may nag ba lay takk jabar waroon nga ma koo wax. waaye yéen moom ah jamono yàq na la. lay da ngeen di takk jabar sax seen yaay ak seen ah mën ngeen toog dallu waaw ñu dallu tuuti leen néegu gan néeg bi néegu gan ñi néegu gan ñi ne gan bu am man sa néeg laay tëdd njaay sa néeg laay fanaan de Modou mii mën naa tëdd ci néeg gan ñi waaye man sa néeg laay sama la man ak sama soxna ñooy xam naa dañ lay defaral yooyu moo la jàpp rek mais boo dalloo déedéet sa soxna sama soxna la sa soxna sama soxna la suba damay xëy ñibbi bàyyi ma fa fanaan sa néeg ak sa soxna. Hmm. nga dëgg waaye sama néeg hmm. sama soxna moo fay fanaan ak euh, muuma mi nga xam ne moom nga doon jotee léegi. xam naa kon bee boo naa. néegu gan ñi sax man damay mujj ñibbi parce que man fekkee muuma boobu moom muuma ko eh, mujj. Eh, eh. yaa location nga ñuy location yaa ngi dégg. da nga koy fekk jaay la xuma sa lu mu doon kanam bu tax bi. kii ma bi bul dem boo waxee ba pare danga may may ma daa ma nuyoo la may la ma wax mu toogal lambeñ a ña mënut a gimmiñ ko mën a Modou may ko Modou Modou bu ko dóor sama doom la sëñ bi du ma sama rom de jaay waxal ak kii gis nga làmmiñ mu doon lekk moromam te ñuul sëñ bi boo fi dikkee fekk sa moromu baay da koy jox cër cër bi nga jox sa baay waaye joxoo ma cër joxoo ma cër cër bi nga jox sa baay nga ma war a jox néew ma maay sa baay eh, néew ma maay sa baay waaye jox ma cër cër cër bi nga jox sa baay xamante nañ man ak yow xamante nañ man ak yow si kër gi sama nijaay la xam nga rek dëkk ba liggéey quoi yaram dafa tàng dafa jaar fii nag joteeg mu ma sa xarit ah moo ko def ni mu mel mu ñëw di naq naan ah kër gi lié ak di mel ni nit élevage xam naa ne bu kër gi gerte gi lay seet sax dinaa leen woo yéen ñëpp ñu waxtaan incha allah. baax na incha allah jërëjëf. waaw boo dee yoon nag. jërëjëf daraa ko daloon xam naa. jaay jaay kii moom moo baax na baax kër daal ñëpp nii la dañuy ñëw nappe jaay doole imposé quoi. Modou nañ ñibbi. man ñibbi ma ne kon boo xamante ne jaay maa ngi ñibbi. baax na